comprendre ma ah. génération bi ñu nekk jël jëkkër maanaam def ko morom daal def jël jëkkër mooy naan ko ak ngeen xam ko yéen da nga ñi nga xamante ne da ah, baax na du ñàkk fayda ba suñuy liggéey jee balaa heure balaa daw dem ñibbi mais attends mais parfois pour ah. ma respecter rek. waaw Eva non ma laaj rek yaay. dama am lu ma bëggoon rek wax euh, xam nga dañ ko wax léegi rek ci jigéen xare bu mu daan xaree. soo xoolee jigéen mu ci biir néegu sëyam daf daan xare mooy li nga wax léegi. maanaam jaayante. Mhm. ngir liñ naan ku ñurug sa jëkkër yàq sa ay doom. waaye xare bi dañ ko doon xare ci. waaw waaw. waaw am nee na nga wàññi ko son bi euh, boos kaay defal ñu écran bi mu ñëw. waaw am nee na nga wàññi ko son bi. ndax pare nga tegal ma ko ma génnaale ko. waaw wàññi ko son bi très bien. <laughs> waaw waaw ba pare tegal ma ko ndax ana xanaa daa baax fi ne sama noonu. daa baax yaay yaay bay daa baax. waaw yaay ah, tey Bruno tey Bruno Bamba Bamba géré son bi Bruno Bruno moo fi nekk ak Bamba. Ah, Bamba borom son 2STV kenn Bamba. macha allah waaw yaay mag bu roppee bu ko defee dañ daan xare ci seen biir biir néegu sëy di xare tamit ci biti ndax boo xoolee ku mel ni ndata yàlla wala njëmboot mboot rakkam ji wala jigéenu euh, waalo yi dañu naan leen lingeer du waalo boo xoolee dañoo yàgg a jàngal ni que place jigéen du ci ginnaaw rek jigéen dafa war a taxaw ci kanam dañu daan wan ne que ñun suñu culture dafa riche on bu nga xamante ne tey dafa ëpp doole fuuf culture bi nga xam ne moom la occidentaux yi daan andi maanaam dañu daan wan ne que jigéen Euh, jigéenu africain wala jigéenu Sénégal palaasam ci kanam la mës a nekk ndax boo xoolee ndata yàlla moo nekk jigéen bi nga xam ne moo njëkk a taxaw dëkku tubaab yi mhm. moo taxaw njëkk a taxaw jàmmarloo ak tubaab bi ndax lan bañ gàcce ndax lan wan leen leen ñun suñu culture wan leen leen ko ñun jigéen ñi Sénégal du ñu ne buñ bu ñu doon góor ndax ki naan bu ma doon góor boo doon góor tamit doo ko def rawatina li tax ñu indi talaatay ndeer xam naa ne que yow tamit di nga ci duggaat léegi mm. euh, jigéen ñoo xamante ne ay ay jigéenu jàmbaar lañu dañ daan xare dañ daan jël seen ay bu jigéen waaw dañ daan jël ay mbubbu góor seen i mbubbu borom kër wala seen ay mbubbi doom xoolal waaw dëgguma la mi ngoog ay ñaara ngoog loolu mooy ñaar waaw dañ ko daan sol di def comme ni góor ñi daan def dem di ba tax na tey macha allah li jigéen góor ñi daan xaree noonu lañu daan xaree dañ daan rey loo xam ni sax maanaam lu ëpp fuuf li góor ñi daan def ngir rek bañ gàcce ak bañ ku leen yàpp ba tax na gis nga traité bi mu amee ñu bañ ku leen yàpp tax ñu tëj seen bopp ci biir nekk taal seen bopp bu wane ni la rek waaw kay pour exemple rek ki tey li nga xam ne tey xew na fi récemment muy démocratie bu ñu gisee xale di xeex démocratie mën nañ ni que démocratie ñun suñu jigéen ñu mag ñu njëkk ñi ñoo ko njëkk xeex ku mel ni Aline Sitoé Diatta muy xeex xale bu ndaw la woon yaakaar naa ay ñaar fukki at la waroon am mm-hmm. mais nekkoon na jigéen bañkat boo xamante ne dafa taxaw ne carrément bañ ne bu ñu kenn yab bañ ni ko carrément ñi nga xamante ñooy sunu ay baykat kenn du ñëw ngir nangu seen ay jiw mbaa leen tegal benn itinéraire naan li ngeen def alors que ñoom neen lañu war a def mm-hmm. nekk ay bañkat yoo xamante ni macha allah kon yaakaar naa rek bu Sénégalais di xeex démocratie nekk na loo xamante ne maanaam histoire dafa répété wu rek parce que suñu mag ñu njëkk ña ñoo ko njëkk a xeex ñoo njëkk a bañ ku ñu yàpp ñoo njëkk a fësal a ñun am nañu doole boo xamante ne waru ñoo nangu kenn ku jóge fëre ci àll ba moo xam ngay tubaab mbaa ngay naar ak koo mën a doon hmm. na ah loo ne macha allah jigéen ñi dañu yàgg xare ci côté bu nekk donc pour rek dëggal li ne moom nga muy xare ci biir néegu sëy waaye tamit xare ki taxaw parce que jigéen daan am doole boo xamante ni danaan sax ëpp doole njiitu réew Uh-huh. parce que daana taxaw taxawal boppam boo xamante ne tey li mu daan mën macha allah li mu daan maanaam ci ci réew njiitu réew sax du ko mën donc mu nekk loo xamante ne macha allah jigéen yàgg naa taxaw dëggal boppam ci côté bu mu mën a nekk. waaw tey mbaa ci askan wi waaw ndax jigéen mën na nekk président am li mu wax li Astou wax nii. jigéen mën na nekk président. moom laa la wax ma maa ngi koy wax maa ngi naan suñu jigéen ñi tamit est jotul ah ñu jug. gëgëm suñu bopp femme présidente dem jiitu diriger réew mi ah, bi. ma ma tàggoo waale. waaw ah, nag duñ bokk ci yooyu ndax nun ragal suñu borom <laughs> lu ko indi kilifa. ndeysaan. ji xam nga sa maam la sukaabe góone ji. la sukaabe waaw waaw. dafa xeex ba bàyyi xeex. ba bàyyi ba toog. ndeysaan ba mënatul a xeex. bu tracé bindi ko leetar ni ko maa ngi ñëw Kajoor mhm. xeex say yow la sukaabe woo Kajoor nag Kajoor woo Ngóone te Ngóone jigéen Ngóone taxaw ni ko takkal leen ma yi baay solo leen ma mbubbum baay solo leen ma mbaxanam baay soxal leen ma fitalu baay teg ma ci fasu baay damay daal di dajeeg ñoom góor baax na jigéen baax na te góor ta bi muy solo di xeexi jigéen la mhm. te dafa nan ni ñoom la sukaabe mooy xeex te booba Ngóone jigéen baay xeex la ilaha bi mu xeexee na ba nga ah, xam ne mi ngi bëgg a të. Mhm. géwél bi doxal ko ginnaaw ne ko lab mhm. cukaa ba kañ na nga daan xeexe ni gaare ko sa sa sa sandi joor mhm. xattar bi ku bu jant boo janloo jant bi janloo guy maam gi boo dóoree koo dóor mu daanu géwél ba ñoo na nettali ko xeex ba moo tax ñu la sukaabe ngoo ne jéy dafa xeex ba bàyyil xeex Omaro ndeysaan ku bañ cosaan dëgg la ku bañ cosaan da amu amul cosaan bañ nga sa bopp te ñàkk xam sa cosaan la waaye ku juddu am nga cosaan. dëgg la yaay baal ma da ngay tàggatoo ma ma kiyeel waale ci. parce que li ma doon wax sànq mooy le le le le le 7 mars mille huit cent vingt ci talaatay ndeer euh, ndax gisoo ni kon ñuy nettali histoire bi ndax Fatim Yamar Xurey Mbodj. ni ngay Fatim Yamar Mbodj. Xurey waaw ba mu ba ba ba ba ba góor ña demee ndar faju ji. Mm-hmm. Euh, bu terrasse ñëw. ñu takku taxaw jàkkaarloo jàkkaarloo ko euh, góor ñi xeex ak ñoom ba gañe leen daal di rëccal ndata yàlla pour mu nettali ko est-ce que bokkul ci job ak ngor ak ñàmbaari jigéen moo tax man dama dama doon préféré le set mars bu nekk ñëpp dem waalo ñu sargal leen ndax. am xam nga lu waral loolu. Mmh. moo tax ñu ne jigéeni waalo mbooj danoo bool.